yuy xëccoo ab maamul muy ab faayil wala ab mafonam bi wala ay maamuraat yu bari loolu la ñuy jàng tey ñu ko tuddee tanaaso moo tax mu ne in aamilaani ndem ñaari woy jëf lay jëf nag mooy lay rafan faayil ak dina sama mafonam bi maanaam fenlu wala yu demee noonu نازع قتشونن فاكسر مبالو اوب نياري وي جيف كون مون غاغيس اي فعلو فعلو يوب نياري فعلو داني خيتو في الاسم تي بن اسم وار كو نصب نيوم نيب ولا ني وار ولا ني وار او اكثر ولو اوب صب بن اسم يا مبصرا يوم جانغال ام سوكي دا فام نياري وي yu xëccoo ci benn maamuul wala lu ëpp ñaari way jëf xëccoo ci benn maamuul wala lu ëpp ab maamuul maamuul mooy lañ jëf nee na fa jaaza dagan na fi istimaalim ci seen jëfandikoo ñooñ ñooñ ñooñ naxwu an tuumila nga jëfandikoo ayuhuma bum ci ñaari fexal yooyu si te na la mm-hmm. bu la neex mën nga ko jëfandikoo maanaam mën naa jëf ci ismu ko mën ngaa waaye nan ba tey am waaw nañu yem foofu dégg nga mooy ñaari amil ñaari ci benn maamul ni ki la alquran wa aatuni ufriq alayhi qitaran aatuni andil leen ma qitaran muy muy noxaas pëdam أفرغ عليه قطرا آتوني دافاي نسام نياري مافون نسام نا ياغي قطرا سوخلا نكو مو نيك مافونم نياري أفرغ عليه دي نسام بن مافون <coughs> فعلوك فاعل لا سوخلا قطرا كون نياري عامل وار نانيو جيف سي بن معمول مانام نياري فعل تاي وار نانيو نسام بن مافون كون مي مثالام نياري عامل يو خامني دانيو سوخلا بن معمول pour ليغيجي boo joxe misaalam lu ëpp ñaari amil war a dégg nga jëf ci lu ëpp benn maamul mooy li waaji wax ne daraba wa akrama zeydun amran cosaan li mooy daraba zeydun amran <coughs> kon daraba gi soxla zeydu muy faayil soxla amran muy mafoolam akrama zeydun amran akrama soxla zeydu muy faayilam soxla amran muy mafoolam daraba wa akrama zeydun amran su ko defee ñaari maamul jëf nañ ñaari amil mooy ñaari fenlu jëf nañ ci lu ëpp benn ismu maanaam jëf nañ soxla nañ xëccoo nañ faayil ak mafoonam bi ñaar xam nga foofu ñaari amil la yu xëccoo ñaari maamul <coughs> maamulaan lépp ñaari amil mën nañoo xëccoo it benn maamul comme booy taaya nga ne kama sallayta ay ala ibrahima wa baarakta أي على إبراهيم ورحمت على إبراهيم كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم على إبراهيم léegi jaar ak majruur lu ko jar sallayta soxla na ko baarakta soxla na ko rahimta soxla na ko foofu ñetti maam wala nga foofu soxla benn ismu dégg nga lu ëpp ñetti mafoon it danañuy soxla benn benn ismu comme tusabbixuuna وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين دبر ظرف لا ظرف لا جو خم نين كون نسب لو كان نسب تسبحون لو كان نسب تحمدون سخن لك لو كان نسب تكبرون سخن لك فوب نيتي فعلون فوب بنيك سخلا <coughs> نسب ظرف بوبو كون نيتي فعلون جيف نانتي بن معمول دين سوغالي فيه loolu lay wax ne mooy tanaazu xëccoo ay fenlu yu bari soxla benn ismu wala ñaari fenlu soxla ay ismu loolu mooy ma kii tanaazu su amee nag bu la neex nga jëfloo bu la neex nga jëfloo moom lay wax ne fa jaaza dagan na fi istimaalin seen jëfandiku ñu nuxaat yi an toomilaa nga jëfaloo ayuhuma bum ci ñoom ñaar siita soob na la dégg nga waaye wa aydan ba tey umila jëfloo nañ al awwala bu njëkk ba al muhmala buñ neenal fii damirin ci fii damiri ma ci damir la nga xam ne xat tanazaahu xëccoo nañ ko dégg nga kal axiiri comme bu mujj ba dégg nga dégg nga maanaam li mu bëgg wax foofu mooy bu la neex nga jëfloo waaye nag mën ngaa jàpp ne kuufi yoon yi lañ tànn mooy ne bu njëkk bi nga war a jëfloo ndax bu njëkk bi moo jiitu fenlu bu njëkk bi moo jiitu kon moom nga war a jëfloo basari yoon yi tànn mooy jëfloo fenlu bu mujj bi ndax moo gën a jege ismu ba basari yoon yi lañ tànn mooy jëfloo fenlu bu mujj ba ndax moo gën a jege ismu ba kuufi yoon yi luñ tànn jëfloo fenlu bu njëkk ba parce que moo jiitu waaye nag nee na نينا اعملا نغا جفلو الاول بو نديك با المهمل با نينال بو خامني لي جفوت في دمير ما قد تنازعوا في دمير لا خامني ني خاتيو نينكو لي لول موي سو فكه داغا توپ كوف يوني نغا جفلو بو نديك با لو ملني دا فام نغا جفلو بو نديك با دينغا بو نياارال با خولال لام سوخلا تي damir nga jox ko ko tey boo ne xaama taxaw na wa qaada toog na axawaaka ñaari mbokk du ñaar yëpp soxla nañ rafan boo jëfloo njëkk ba ñaareel bi defal ko damiru isnayni ni ki xaama wa qaada axawaaka taxaw na wa toog nañ ñoom ñaar axawaaka sa ñaari mbokk parce que axawaaka alif googu ci aqwaak la dellu waaye aqwaak boo xoolee moo jiitu rutbatan parce que moom gannaaw xaama gi la war a ñëw xaama aqwaaka wa qaada kon foofu delloog damir ci lu mujj lafzan wa amu fa ah, nga lu ma su ko defee <coughs> foofu mooy bu dee dafa soxla damiru rafa fekkee dafa soxla damiru nasab ni ki xaama taxaw na wa darabtu dóor léegi axawaaka xaama nga jëfloo foofu ضربت moom maf'uul la soxla axawayka la waroon doon qaama wa darabtu axawaaka léegi qaama axawaaka nga def legi darabtu lu mu soxla mooy damiru tasniye bu mu def maf'uul léegi kon nag naan qaama wa darabtuhuma axawaaka nga wutal ko maf'uul boobu loolu lay wax ne na nga jëfloo al awal bu njëkk ba al mu'mal buñ dégg nga dégg nga buñ nee na ah dégg nga moom fii fii may wax nag saani bi lañ neenal buñ neenalee saani bi si ngay jëfloo سينغ جفلو بن نيل ثاني بي جفلو فوف دمير في اول بي لن جف لن جكيو ثاني ثاني بن نيل بن جك بو قام ومرت اقواك لغي قام اخواك ومرت رمنا سخلنا تم تسنيغم غم غم جار لكن قام ومررت بهما اخواك قام ومررت اي باخويك لو رمضان بو جفلو مررت kon su fekkee dangaa jëfloo bu njëkk ba bu ñaareel ba lam soxla ci demiru rafan moo xam tas ne lam kii wala lam soxla ci demiru nasab wala lam soxla ci jar danga ko fay nattale dégg nga foofu su fekkee nag da ngaa bu ñaareel ba neenal bu njëkk ba te la ku fi wax foofu bu soxlaa bu njëkk ba soxlaa demiru rafan nga ko maa bu soxlaa damiru nasab wala demee wala jar lu mu jar doo ko fa nattali parce que foofu dellu damir ci lu mujj dafay am labzan ba rutbatan saa yoo ko nattalee waaye nag maye nañ ko ci bu fekkee faayil la ndax faayil moom mën a rot nga nattale ko fa waaye maye wuñ ko ci mafoon bi wala luñ jar parce que yooyu mën naa mën naa rot loolu lay wax ne kal axiir comme bu mujj ba su fekkee da ngaa jëfloo bu mujj ba. يجب دنور حذفه حذف معمول با وذكره تدك قليل نولا في نحو ارتجي دنا ياكار ويرجوني دنا ما ياكار الخليل خليل بي اي ويرجوني الخليل لك ارتجي موي بو نيك بي ياو بو نيارال بيغا جيفانديكو ويرجوني الخليل لك دو وني ارتجيه artajir lu soxla mooy damir bu mu nasab artajil xali la waaye dangaa ngaa jëfloo bu ñaareel bi topp basir yoon yi su ko defee fii damir nasab la soxla doo ko fa dindi doo ko fa def da koy dagg ne artaji wa yarjunil xaliilu doo wax artajihi wa yarjunil xaliilu ngay wax artajihi bëriwut ah yaa ngi xam wax ma amaa su soxla woon fine da ko fay def dégg comme qaama wa qaada axawaaka gi ñu waxoon léegi jëflawul qaada comme waa basiroon yi soo jëflawul qaada dag naan qaama wa qaada axawaaka qaama alif googu faayil la parce que moom dafa soxloon axawaaka bu def ko faayil alif googu ci lu mu dellu axawaaka axawaaka moo mujj lafzan wa rutbatan parce que moom gannaaw qaada la ñëw kon moom moo mujj lafzan wa rutbatan foofu dellug damir ci lu mujj lafzan wa rutbatan am na fa moo mujj ci baat moo mujj ci daraja parce que ñoom ñëpp gannaaw xaama lañ ñëw waaye nag maye nañ ko parce que faayil mënu ñàkk ci baat moo nga mën wax xaama wa xaada axawaak amaa bu fekkee damir bu njëkk bi mafoon bii la la soxla wala wala luñ jar da koy xasaf comme nga darabtu wa darabani axawaaka muy artaji wa yarjuunil xaliilu darabtu wa darabani أخواك سنعي بوكي دور نجمة ضربت دورنا وضربني دورنا أخواك دو وحنا ضربتهما وضربني أخواك بنيار بنجي جفلو doo bu njëkk bi darabtuhuma de parce que lam soxla foofu lu ñuy nasab la te lu ñuy nasab mën naa rot moo tax naan darabtu wa darabani axawaak rek nit ñi xam ne bu ñaareel bi nga jëfloo comme artaji wa yarji wa yarjunil xalil foofu tudd ko fa bëriwul xam nga ma soo waxoon marartu wa marra bi axawaaka ay marartu romb naa bi axawayka waaye bu ñaareel bi nga jëfandikoo wa marra bihi bii axawaaka doo wax ne marartu bihima wa marra bi axawaaka parce que lam soxla lu ñuy lu ñi lu ñuy jar su ko defee loolu lay wax ne kal axiiru comme bu mujj bi bu dee moom nga jëfandikoo hmm? su wa yajibu dana war xasfuhu nga xasaf damir ba bu dee lu ñuy jar la wala lu ñuy nasab tudd ko lu néew la مثال موي ارتجي ويجون الخليل واي بودي لوني رفع على دمي بي دنجكاي اندي كوم قام وقعد اخواك نان قام وقعد اخواك كل لول ماي تنازو نياري عامل ولا اوب نياري عامل لي جيف سي بن اسم ولا اوب اب اسم بولا تي نيه مان نكو جيفانديكو جيفلو كوفي يوني تان نان nga جيفلو بو نجيكي بي باسكو مو جيتو بصر يوني تان نان nga جيفلو بو نياري لو باسكو مو غنا جيغي فين su ko defee nag daf ne bu fekkee amila na nga jëfaloo al awal bu njëkk ba loolu mooy mazhabu kuufiyoon su ko defee al muhmala bañ neenal neenal bayit te mooy bu lan bu ñaareel ba fii damiri maa xatt naazaaw na na nga ci def damiru lañ xëccoo moo xam faanil la soxla xaama wa qaada axawaak dégg nga wala boog mafoonam bii la soxla darabani wa darabtuhuma axawaak wala jar la soxla dégg nga eh, darabtu eh, dégg dégg nga eh, mara marra marartu wa darabtu ah, wa darabani axawaak dégg nga marartu bihi maa ngay def wa darabani axawaak hmm? marartu wa darabani axawaak marartu bihi wa darabani axawaak kon soo jëfloo bu ñaareel bi bu njëkk bi lam soxla déedéet boo jëfloo koon laa maa ngi jum darabtu darabani wa marartu axawaak loolu laay wax darabani wa marartu bihima axawaak ngay wax dégg nga kon soo jëfloo bu nu mu tudd sax bu bu bu njëkk bi comme ko fi yooyu bu ñaareel bi lam soxla da nga koy jox parce que foofu dellu demir alal mutaaxir lafzan rutbatan du mosa am amma su fekkee da ngaa jëf loo bu ñaareel bi bu njëkk bi doo fa dugal mafoolam bi doo fa dugal majruur mais da nga fa dugal faayil comme qaama wa qaada axawaaka parce que xaamal la mais doo wax darabtuhuma wa darabani axawaaka kenn du ko wax doo wax marartu bihima wa marra bi axawaaka parce que foofu majruur moo fa nekk loolu la ma kat axiru comme bu mujj bi yajibu dar war xasbuhu nga xasaf maamuram wa zikru wa tudd ko qalilun lu néew la fii naxwi artaji شلو ملني سواح جنا أرتجي دنا يا كار ويرجوني الخليل ويرجوني مرفع خليل أرتجي كن مفون لصحلة أنكو في دق دوا أرتجي إن أريد الإسلام واستعنت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته